noonu ma ko waxee noonu lay demee wàññi nañu daal di 1300 daal di 2000 daal di 2500 wàññi nañu dagul 2500 ku lay